waaw ndaje bii nii donc SYDEP pour que nous puissions a ay membres pour que nous mu gën leen bien outiller bi aussi mu koy def contexte coronavirus parce que jusqu'à présent gis pas que ni coronavirus au Sénégal Je tax que donc xaaj ko ci ñaari nous benn bi mu invité woon ay antenne régionale ak qui d'autres acteurs de l'éducation beneen bi mu invité waat une antenne régionale yoo xamante ne amuñu woon chance fekkee première bi justement pour mu xol nan la wara a def pour renforcer len donc en capacité renforcement capacité bobu noonu mu ngi nekk ci ay thématiques yu bari yu nga xamantene dafa am ben étude bu nga xamantene ne defoon nañ ko ci COSYDEP étude bobu noonu woné won que ni coalition bi kat xëy amna ay touti faiblesse ci ay yenn domaine mu di donc la connaissance des droits juridiques donc des textes juridiques de l'éducation mais aussi euh, walum xam-xam ci li ñuy wax ODD c'est-à-dire li nga xamantene moy politique internationale bi nga xamantene danaka moy définir éducation ak d'autres domaines yi mais aussi li ñuy wax communication sociale c'est-à-dire nan la par exemple suñu ndaw yi nga xamantene ñu ngi ci région yi suñu coordonnateurs yi nan lañu wara def ba mëna porter un beau plaidoyer mëna waxtaan ak njit ñi pour que ñom li ñu bëgg ñu mëna am li ñu bëgg. Il est important que les acteurs soient aient des connaissances et des compétences qui leur permettent de mieux euh, défendre euh, l'éducation publique de qualité dans notre pays, pour mieux participer à l'effort pour la performance du système éducatif. C'est donc des sessions importantes euh, qui vraiment participent à la préparation de ces acteurs-là pour mieux faire face en tout cas, et apporter leur contribution euh, importante euh, au système éducatif. war na am parce que quand même euh, rencontre bu tey bi euh, daf ñu nekkat di jox ay informations sur euh, le système éducatif donc boo xamee système bi nu mu bindoo nga mën a xam nan la mën a jokk cest à jokkalante ak yeneen sis ak yeneen secteurs yi di nga mën a am di nga mën a xam nooy mën a euh, appuyer au niveau local euh, le développement de l'éducation.